ñu ñëw fii nga xamante ni moo di euh, CIET du comité d'initiative euh, pour loo de Touba mu nekk loo xam ne loo am solo la mu bëggoon nga wax nu lu mu wundu noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen jiital ci sëriñ Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadoul Bassir xalif général des Mourides di ñaan suñu borom yokk fanam ak wéram ba mu àggale ay mébétam ak mboolem njabootu sëriñ Touba di leen nuyu ci turu sëriñ Abdou Khader Mbacké jiili mi nga xam ne mooy jëwriñi maa u rahmati ndox mu neex am ndox balaa mën a am njariñ day boole neex ak set ak sel ndox mii nag ñuy defare fii ci maa u ndox mu neex dafa boole neex ak set ak sel loolu moo tax bi mu ñëwee fekk na forage bi panne pompe te pompe ku ne xam na ne dafa cher mu jaayante fexe ba forage yi am ay pompe mu wëlbatikuwaat yeesalaat mbooleem machine yi nga xam ne dañuy filtrer ndox mi di tàggale xorom si ak microbe yi ak salte yi ci nekku nag yëpp mu wëlbatikuwaat changé waat leen yamul ci loolu mu lij mu wutaat ay camion citerne yoo xam ne yoo xam ne ndox mi ciy nekk du changé bu ci am junniy at du am changement mu waat ko ci yamul ci loolu dafa fekkoon dencukaay maa o raxmati xam nga dafa ay ñu ko nekkal ay jëwriñ yu ko nekkal ci dëkk bi daan ko jaay daan jaay ndox mi nga xam ne moom la ñuy jëlee fii di ko fa yóbbu ndax ndox mii dañu koy wecceeku pour di ko jël di ko delloowaat ci ndox ci ci ci ci ci liggéeyu Serigne Touba léegi nag loolu moo tax mu waajal ay xeeti defukaayu ndox yoo xam ne junniy litre lay def. maanaam ay citerne. ay citerne yoo xam ne ay ay réservoir yoo xam ne euh, junniy litre lay def waaye yii moom dañ ko commenté usine ba muy yu bees peq yoo xam ne yow mi ko am yaa ciy njëkk yaa ciy njëkk def ndox. ñu commandé ko itam ci turu usine bi def ci turu usine bi ak i mandargaam ak i numéro téléphone nga xam ne képp koo xam ne bëgg nga ko boo ñëwee sàkk ko ngir am ko xaaj bi lañu lay xaaj bi ngay jox joxe xaaj bi ngay joxe beneen xaaj bi ci des ñu di la ko topp di la ko fayee ko ci noo ko mën a fayee ngir sëriñ bi yitteem mooy ànd ak askan bi liggéeyal sëriñ Touba. wutal ko ay caméra de caméra yoo xam ne guddee bëccëg lu fi xew lépp dañ koy xamandoo. Euh, usine bi li muy jël ci ci ci ci gasoil dafa bari. mu daan ko commande fu nekk mu wut benn station def ko fii boo xam ne guddi ak bëccëg bu ñu soxlaa duutuñu dem fenn ñoom sañoo am seen station bopp boo xam ne lu ñu soxla ci gasoil am na fii mu jàpp ne nag ma u rahmati ndox mu neex alali Serigne Touba la kon taal njabootuk Serigne Touba gi taalibe Serigne Touba yi dañu ko war a jàppe ni ñuy war a jàppe xam ne alali Serigne tubaal lu ñu jàppe ko sàmm ko saytu ko ba nga xam ne lépp luñ ci bëgg dinañ ko am waajalaat na bisi xew yi ngénte yi ak cant yi ak céet yi ak màggal yi dañuy soxla ay mbuusi ndox kenn ku nekk it wut nga sa machine boo xam ne bii da ngay wut ndox mu la neex di ca sol di takk di di di jaay ñoom ndox mu sell mii ñuy defar wut nañu seedi sesi yu ñu def ma rahmati di nga xam ne képp ku bëggati am ndox am aw xew boo ñëwee loo ci soxla dinañu la ko jaay ndox moomu mi ngi fi ñu di ko jaay en gros foo dem ci épicerie yi am na fa bitig yu mag yi am na fa ku def komande it loo ci soxla ñu yët la ko kon nag ñu xam ne ma rahmati al alil sëñ nga xam ne képp koo xam ne ñëw nga jënd ci ndox ñëw nga jël jël ci ndox mi teg ko ci sa buntu kër di ko jaay jàppale ne bokk nga ci ñuy liggéeyal Serigne Touba. waaw euh, numéro téléphone bi mu ngi nekk 70. 308. 53. 50. wala beneen numéro bi 76. 645. 75. 84.